député euh, Sanou Dione également ci plateau bi dinañ ci feggoo ak euh, Pape Sané du ñu def lu dul nuyu suñu invité on va jouer contre le temps on a accusé du retard honorable député Sanou ñu ngi lay nuyu bu baax. toujours un plaisir un plaisir partagé euh, vraiment ces ces invitations. merci beaucoup donc di am toujours plaisir aussi fekk suma xarit Pape. Mhm. tu as vu aussi di apporter tout mon soutien à Walf. oui tu as vu qu'on ne sait jamais de c'est vrai que jafe-jafe yi fii jaar yëpp. Mhm. tubaab bi mun na créer condition yëpp quoi. Mm-hmm. mais sachez le peuple est avec mm-hmm. te bu soobee yàlla defe naa moom. Walfadjri c'est la voix du peuple. incha allah on ne sera jamais tombé bu soobee yàlla. incha allah incha allah honorable député ñu am mbégte également comme ni nga ko waxee feggowaat ak yow am mbégte fekkat euh, de euh, l'ami de Sila. <laughs> l'ami de oui merci. <laughs> Ah de nouveaux <laughs> am mbégte euh, tamit euh, toogaat ak yow ci plateau bi j'espère que tu as passé un bon congé nuyu sanu John euh, honorable député également ñu ñuy seetaan waxtu bi bu jotee si sunuy euh, plate plateforme yi. Mhm. voilà les Sénégalais de la diaspora mais à l'intérieur du pays ñu fa féete également du ñuy suivre su suñu ay euh, plateforme muy Facebook ak YouTube ñoom tamit ñu ngi nuyu bu baax a baax Pape tey Issa fi pour les divers mais dañuy mhm. tàmbale comme que on va parler de l'Assemblée nationale avec la présence de l'honorable député Sanu John. ci li nga xamante ne moo di passe d'armes bi nga xamante ne am na assemblée nationale entre ki nga xamante ne moo di Guy Marius Sagna ak le président du groupe parlementaire euh, Abdou Mbow. waaw mais merci Awa euh, déjà il faut souligner que c'est un faux débat bi nga xam ne moom la ñaari député y soulevé. Mm-hmm. un Euh, Abdou Mbow euh, président du groupe parlementaire euh, oui. Benno mm-hmm. euh, saisir par lettre Euh, écrite le gouvernement pour demander la présence du ministre euh, de l'assainissement su ma juumul waaw mhm. par rapport à nee a à une question de bonne gouvernement de bonne gouvernance et consort euh, ci noonu noonu honorable député Guy Marius Sagna tontu ko tontu bi boo ko xoolee daf ko fàttali ni que moom mhm. Abdou Mbow mu ngi à sa troisième législature mhm. troisième législature et heureusement heureusement pour la première fois mu am Euh, li ñaan euh, lettre bu mu bind pour demander un membre du gouvernement ñëw ci assemblée nationale. Mhm. daal di ci yokk ne euh, kii nga xam ne mooy Abdou waroon na tamit rappeler rappeler wu rappeler surtout aux Sénégalais que y' a milliards yi nga xam ne commission finance et contrôle assemblée nationale. Mhm. mu ngi koy jéem a soytu ba bëgg léegi. Mhm. te nekkuñu di ci di ci def dara. donc jàpp nañ ni que. Euh, loolu bokkoon na ci priorité maanaam ci wàllu bonne gouvernance mhm. ci wàllu gouvernement bi nga xam ne moom la Abdou Mbow woo Guy di ko xamal ni effectivement euh, c'est droit le plus absolu euh, woo un membre du gouvernement te gouvernement boobu dana rend compte mhm. mais en attendant gouvernement boobu di ñëw rendre compte ñoom assemblée nationale seen biir nañu rendre compte déjà de la gestion justement de l'auguste assemblée mhm. lii daal mooy ñaari propos yi nga xam ne moo ci mujjantal gi Abdou Mbow bindaat tontu. waaw daal di ne ko man binduma la. waxuma ak yow Guy Marius Sagna te du ma mus a wax ak yow je ne te poserai jamais de question ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite maanaam euh, indi débat bi à un niveau bi nga xam ne nous Sénégalais ça ne nous pas li nga xam ne mën na rehausser la démocratie et justement la bonne gouvernance dans ce pays là mhm. honorable tey jii soo déggee euh, polémique boobu nga xamante ne am na assemblée nationale déjà on parle de li nga xamante ne moo de l'assemblée xamante ne tey merci euh, lu am solo la. Mm-hmm. ñun ñëpp dañ ci war a jàngat. c'est un débat qui est très intéressant pour ñi ñi ñëw ëllëg. Euh, Guy a posé Guy a posé un problème. Mm-hmm. ni mu tontu Abdou Mbow. da koy rappeler rek député même si tu du pouvoir du tee nga nga des sa rôle parlementaire. Mm-hmm. xëy na laa comprendre question kii bi. parce que le fait que mu ne kon def nga fi trois mandats. tu n'as jamais posé de question. te nag boo waxee yàlla rek Guy Marius Sagna tout le monde s'est bi pouvoir bi ñëwee ba léegi li mu posé ci question defe naa sax égalé na mu njëkk ba. Mhm. donc. y a pas de parti pris y a pas de position partisane loolu moom ne ko. Euh, man muy muy sama muy sama parti bu nekk au pouvoir wala nekk dans l' opposition. du tee sama rôle parlementaire xam ne c'est pas parce que je suis député du pouvoir rek ma mission de contrôle du gouvernement warul tax du ma poser question wala du ma def nangam. Mhm. loolu aussi wax dëgg yàlla géej day am dëgg ci moom. donc day tax man sanu jonn mhm. wala keneen su ma nekk assemblée su ma parti nekk au pouvoir du tey aussi ma def sama rôle contrôle ndax ëllëg su ma nekkee dans l'opposition su ma posé question dañu ma ne ah yow loo fi nekk woon. Mhm. donc xëy na géej loolu la koy je pense que la réponse de Guy Marius à Abdou Mbow c'est pas uniquement pour Abdou Mbow c'est pour tous les parlementaires pour wane ne même boo bokkee du tee def sa rôle parlementaire loolu rek nag bon moi je pense que ne la réponse de Guy joxuma ko muy Abdou Mbow mais dama ko jox pour tous les parlementaires parce que là Guy a vraiment raison il a vraiment raison mais tey jii euh, honorable fan ngeen toll ci assemblée euh, nationale fi nga xamante ne moo de règlement intérieur bi je pense que le président de la république bi ñu ko déggee dafa ne saisir na le président pour également ñu indiwaat li nga xamante ne moo di règlement intérieur boobu ñu defaraat ko ba mu ñoŋ ba le premier ministre mën a ñëw def DPG am tey fan ngeen ci toll. waa fi ci toll nag moo tax ba ba tey jii ah bu ñu xëyee ñu nga assemblée croiser les parce que euh, bi coow bi amee ñu président assemblée. président de la woo ko ñu waxtaan defe naa président de la République demandé ko correction boobu ñuy wax ci as ci règlement yi dañ ko doon dem. Mhm. aussi wax dëgg yàlla président assemblée woo tous les groupes parlementaires et les non inscrits man mii maa fa teewaloon non inscrits yi. Mhm. mais président assemblée ci bonne volonté am wax dëgg yàlla il nous a demandé nañu de benn commission boo xam ne y avait cinq de Benno trois de Yewwi deux de Wallu et un non inscrit bu mu man man représenté leen. Mhm. nañ dem waxtaan def toilettage les articles les trois articles yi nga xam ne moo moo créé problème et on l'a fait dans un cadre consensuel bañ nañ mu am ay yoo xam ne mais sérieusement à Saly avec l'administration on a travaillé de manière am na sax yeneen articles yoo xam ne gis nañ ko ñun ci biir moo mm-hmm. am ay manquement moom manquement yooyu sax corrigé nañ ko mm-hmm. donc vraiment dans un cadre consensuel ñu def ko bi ñu paree de communiquer que soit soit la proposition ñëpp ñoo ko signé ñun ñeent ñëpp. Mhm. jox ko président la président l' assemblée amoon na nag yeneen article yoo xam sax bokkul ak DPG bi dañ ne bokkul ak euh, kii bi euh, premier ministre bi. ndax mun nañ ko laal léegi wala dañuy xaar après parce que y avait des modifications qui avaient des mhm. yooyu nañ ko teg ba dem dans l' président assemblée aussi saytu ko mook administration. Mhm. convoqué le bureau de l' bi mu convoqué bureau assemblée un vendredi woon mais nag comme que la loi nous demande d'envoyer ça au président de la république pour avis ci nañ ko jébbal président pour la pour avis. Mhm. xëy na dans les huit jours. ba léegi aussi xam nga bu ñu nee ay huit jours xam nga délai bi comme ça c'est le délai quand même minimum. Mhm. ah minimum. donc jox na ko président la république bon président de la république xaar pour ubbi session bi parce que nag assemblée aussi avis président dafa am solo ci loolu. mais est-ce que est-ce que tey jii san euh, vaut la pen bu fekkee ne tey jii on nous parle également de dissolution de cette assemblée nationale là. waaw xam nga dissolution bi ak lii c'est deux choses différentes. képp kuy parlementaire préparé nga treize ou douze quatorze je en septembre président bu dissoudre rek du bett kenn loolu moom nu devons tous y prêts mais nag du tee parlementaire dafay liggéey ba boobu. Mm-hmm. comme parlementaire war na liggéey ba xalaat ne cinq ans lay def. Mm-hmm. mais yow liggéeyal comme si tu étais élu pour cinq ans mais liggéeyal aussi xam ne deux ans yi ñuy wax bu fa emee tamit xamal ne loolu loi moo ko may. Mhm. moo tax DPG bi munoo forcer premier ministre mu ñëw heure bi parce que euh, su règlement intérieur ma règlement intérieur amu ko comme que def nañ ko te président de la République moo waxtaan ak président assemblée ñoom ñaar ñoo xam lu ñu waxtaan. Mhm. mu sant ñu ñu def ko ñun. def suñu liggéey da di manquement bii am bu ñu ko corrigé woon au début yëpp duñ ci fekk. Mhm. xam nga mooy statu quo bi ngay wax dem assemblée croiser les bras bi man boobu moom moo jaaxal est-ce que loolu bu fekkee ne moom ngeen di continuer def ça veut dire que ça reste à l'état. waaw xam nga on est en vacances parlementaires moo tax ñu xaar session extraordinaire normalement depuis le 30 juin l'assemblée la session ordinaire est terminée. Mhm. mais comme que am na lu ñu jublu ñun ñu nekk en attente. tey bu ñu war a wax assemblée rek c'est une section extraordinaire de 15 jours uniquement sur ce problème à moins que état bi joxaat ñu yeneen moo tax ñuy xaar rafet njort que président tey na nit ñi doon xalaat xëy na conseil de ministres xëy na président ci wax wala dina répondre mhm. mais euh, day am niveau boo xam de euh, doy na waar bon ku nekk yaa ngi xalaat est-ce que du dissolution bi moo tax mhm. président tontuwul mais xam nga un parlementaire pour éviter débat boobu ci affaire DPG bi dalaaj ñu ci lii. moo tax te président waaw président de la république wax bi mu ciy wax wax bu rafet la waxtaan naag premier ministre wax na ko na dem. Mhm. wax na président assemblée toilette leen. léegi nañu xaar fii ak euh, ngoon wala suba. incha allah mais Pape suñu déggee li nga xam te ne moom moo jot a am.